Cérébraux International. Cérébraux International. abonné YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci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 bii ñu dëgmal ñu ko xam ne nag ñoom ñooy présidence bu Mali ñu ne nag tukki boobu nag tukki bu gàtt sax lay doon ndax euh, ci ñetti waxtu rek euh, lay euh, toll ñu ne nag loolu mooy tukki bu njëkk boo xam ne njiitu réew mi Macky Sall dina ko amal foofu ci Mali gannaaw bi nga xamee ne colonel Assimi Goïta jël na pouvoir bi boobaak léegi te mu nekkoon ci mai 2021 Thierno Alassane Sall ak Pape Djibril Fall ñoom nag euh, xamle nañ euh, taxawaay bi ñu war a am fële ci assemblée nationale ci diggante lii di coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi euh, Wallu gannaaw bi nga xamee ne nag di Pape Diop moom rejoindre na lii di Bokk Yaakaar nee na groupe parlementaire ba ci lay bokk ñoom nag ñoom ñaar ñëpp xamle nañ ne duñu dem ci lii di coalition Benno Bokk Yaakaar wante it duñu dem ci. intercoalition Yewwi euh, Wallu moom euh, Thierno Alassane Sall xam ne na ko ci ab communiqué boo xam ne kon euh, ay ñoñam publier nañ ko mu ne nag du si rejoindre kenn wante itam Pape Djibril Fall nee na moom it du rejoindre kenn non inscrit lay doon lundi bi ñu weesu nag xam ngeen ne dafa amoon ab sénégalais buy wuyoo Mohamed Dramé toll ci 16 ans bu ñu faatoon fële ca Dortmund ca Allemagne te police def li ni ñoom police nag ñu ne moom dafa yoroon ab paaka. te nag daf leen doon menacé ba tax kon ñu faat ko ña ko teewee sax nee nañ juróomi bal lañ ko dóor. ba mu ñàkk euh, bakkanam fi mu nekk nii nag loolu jur na coow lu rëy euh, foofale euh, ca Allemagne mu am nag ñoo xam ne dañoo jóg di manifeste démb rek manifester woon nañ ay sénégalais ay africain wante itam sax ay allemand bokkoon nañ ci yooyu manifestation bi ci mujj kon démb la am ñuy daal sàkku ngir ñu leeral boobule mbir autorité sénégalais sax ak yu Allemagne itam nee nañ dinañ ci enquêté bu baax a baax ba mbir moomu daal leer nañ bu ñu sukkandikoo sax ci nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur bu état bu Rhénanie foofule ca nord west Paris nee na daal mbir mi dinañ ko leeral à cent pour cent. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy euh, ba léegi sax ñeel réewum Allemagne ci opération yi nga xam ne ñu ngi koy amal. fële ca réew Mali eh, ci li nga xam ne moom mooy eh, mission ONU bi nekk foofu eh, di MINUSMA ñoom nag nee nañ dañu dinañu dakkal seen opération ci boobule mission gannaaw bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy réew Mali dañ leen bañal seen avion kon naaw tiim seen jaww ji loolu nag ki ko xamle moom mooy porte-parole bu ministère allemand de la défence xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy auteur britannique salmaan Rushdie di ab bindkat boo xam ne kon moo fi bindoon benn livre bu ñuy woowee les versets sataniques te nag réew jullit yu bëri jàppoon ne kon euh, daal da caa wax ay kàddu yoo xam ne teggine tegginewul jëmale ci suñu sang Muhammad sallallahu alayhi moom nag démb dañ ko attaqué. ñu ne ab nit daal moo ko attaqué ak paaka gannaaw bi nga xamee ne kon euh, mu ngi nekkoon fële ca euh, New York euh, doon fa amal daal ab conférence kon ci lañ ko attaqué ba jam ko ba sax moom fi mu nekk nii mu nga hôpital. dañ koy jeexal ak xibaar sport démb nag France football publier nañ liste bi nga xam ne mooy liste trente joueurs yi nga xam ne moom la ñu nominé ñoom la ñu nominé kon ci pour Ballon d'Or bu deux mille vingt deux Euh, loolu nag euh, remise bi war a am le 17 euh, octobre bi ñu jëm sénégalais bii di Sadio Mané nag bokk na ca wante nag ñu nemmeeku ne nekk ñu ca moom mooy Messi. mi nga xam ne sax moom moo gën a titré ci Ballon d'Or am na sept wante moom nekku ca Neymar itam nekku ca Messi nag lii mooy lu njëkk nekkul ci li nga xam ne moom mooy liste nominée bu Ballon d'Or euh, depuis 2005 ba léegi li la ñu doon tey ci xibaar d'après seen taw la ñu jox daje euh, altine jaa jëf.